code pénal code de procédure pénale 1965 la ñu commencé dugal di nga am waaye pour code de la damay jiital rek ne war nañ nga xam ci man man perte lu ma ko lu professeur wax moo ci nekk on dans un milieu universitaire moo tax tey ma am sañ-sañ génn samay kàddu ñu wax en tant que scientifique en tant que juriste parce que réew ñun ñoo ko bokk bu fekkee dañu am suñ kii rek ne luñ ci wax dañuy appliquer rek luñ ci wax su boobaa. dañu nekk loo xam ne lu jëmal lu ñu lu jëmal suñu application suñu environnement juridique kanam te ñu ñoo nekk ci terrain bi léeg ñu appliqué am nañ tamit beneen xam-xam bu bokk te bu ñuy appliqué dañuy baax ñu tamit ñu bokk ci débat bi loolu moo waral tey sama teewaat ñëw ma rek personnellement en tant que magistrat mais en tant que juriste également moo tax damay am ay références yoo xam ne sur le plan scientifique dañu ciy jàppale code bi ñu ko tëggee dafa ñëw dafa nekk près de huit cent articles ñu yóbbu ko tasaare ko ci ay huit livres waaye man du ma topp lu tëddee livres kon dafa jël doomi aadama topp ko ci juddoo ak ci ngoneek bu may wax je man moom laa jël ne ko ci de la naissance jusqu'à l'enfance ou d'une majorité donc de naissance de la minorité boobu mooy première partie boo xam ne naa ko présenté comme temps bi bëriwul ci lu gaaw am une deuxième partie boo xam ne mooy les les liens du mariage du mariage et de ses effets et du démariage également du divorce loolu kon bi da cee wax am na également bu mujj bi mooy le décès et ses conséquences kon dama topp doomi aadama bu juddoo lu ci code wax daf ne bu dee koo xam ne judd na ci biir néegu sëy baay ba jëkkëri soxna si wasin mooy baay ba bu dee koo xam nag ne judul ci biir sëy dañ koy defar turi centimètre dañ koy defar ba wala baa ji nangu ko baa ji bu ko reconnaître na su boobaa dañ koy jël mën ko jox sant baay ci wàllu tënk laay avancé di dem parce que aw ñu doon pour wax lépp di di leeralaat tamit dama avocat ko bi man ko dama kiy liggéey Euh, ci wàllu liggéey bi tamit maa ngi sant yàlla nañ ci yegg si kanam def naa sept ans Ziguinchor jógee naa Ziguinchor ñu affecté ma ma dem Dakar mais continué di waxtaan ak ay imam ci ay dossiers yu ma leen joxoon ñu koy gérer foofu noonu naam affecté nañ ma waaye su ma nee ko demal ji bi ne ma déedéet yaa ko tàmbale woon ci yow laa yoon ma amoon proximité ak imam yi foofu yëpp yëpp Ziguinchor yàlla mel na ci loolu noonu donc ci wàllu naissance bi loolu la message bi yemul foofu noonu parce que dafa am lu mu ànd am yeneen conséquence mooy xale bi bu nekkee gone nekk liir am na foo xam ne fa la war a cosaanoo am na foo xam ne fa la war a xeetoo fa la war a jiitoo am ku war a jël responsabilité nekk kilifa kooku yoon dañ nekk kilifa gi moom nañu wax puissance paternelle dañ koy taftal leneen muy administration légale mooy xale bi bu fekkee am na ay ay bien waaw parce que am na olofal xóotal boo xam tamit bu ñu ko naree def man su ma bopp ma nekk à moo tax damay boole léeg-léeg wax yenn terme yoo xam ne su ma amul ma waaw kon bi dañ ne yaay ji ak baay lañu wax waaye nag comme ci biir néegi sëy lañu ne nañ nekk ki nga xam ne mooy jëkkër bi moom moo koy yor moo koy exercer fan la amee sens mooy bu tàggoo amee bu jafe-jafe amee amee foog àttekat bi wax kan la koy jox mu ànd ak garab fu lay amee solo su boobaa nag lu koy intéressé du xool rek nag góor la jiw lay àndal jigéen la kii lay mais danaa non intérêt l' intérêt exclusif de l' enfant la fi été fa lay ñëw Mm-hmm. aywa beneen bi moom mooy ci wàllu te loolu dafa war a ànd ak benn preuve preuve lu koy wane nag diw mooy doomu diw chaque fois dañuy soxla këyit waaye dañ koy sàggane du ma ci insister parce que damay wax rek ne këyit bi dañ ko war a guddal pour mu am turi ndey am turi baay am sant baay pour ëllëg biir mu mën a ko taxawal te man kat bii mooy sama baay bii mooy sama ndey tant que amul loolu loolu yoon na ciy maam loolu laay wax sànq professeur Dada moo tax ñuy dem ci tribunal lan tax ñuy dem ci yoon du ma waxee noonu dama naa ne yoon dafa maam parce que waxtaan bi waxtaan naa ak waa AMA Séné ak waa AMA Sénégal bi si Ziguinchor ma ne leen yoon dafa maam tant que yaa ngi yoon yoon na leen waaye boo duggee ci yoon nag yoon dëgg la ci yoonam ci wàllu code de la famille bi ñuy liggéey ci domaine bi xam def naa bi lu ëpp fukki at am na yenn yoo xam ne dañ ko cay dërëm permettre ki nga xam ne moom moo ñëw tànn ba leen koy appliqué tànn ba leen koy appliqué bu fekkee tànnul am na droit pour tànn bu fekkee tànnul. fekkee ne ci wàllu wàllu wàllu fekkee ne ci wàllu boobu sax day teel fekkee ne ci wàllu sëy la par exemple parce que su ma nay yàgg ci kayit yi juddu yooyu xam naa du solo si rek boobu wutal ko kayit def ci wàllu loolu mais ci wàllu sëy bi par exemple am na lu si jiitu mooy maanaam labat labat bi ci yoon newul loo xam ne dafa obligé def newul loo xam ne boo ko defoon dañ lay téye ci kaso mais dañ ne la label bi warul weesu at ci yéen ñaar war ngeen mën a taxaw jëflante sutura ak teraanga ba nga xam ne ëllëg si biir ku ci ku ci wor sax ñu jël la ñu jël la teg la daal yow jigéen bu ñu bi xam nga ni ñu koy tuddee sax ci bi waru gar bi bële ci biir sëy la waaw waru gar dañ koy delloo fekkee ne yaa koy ba tas am bu dee nag ci ku góor ki la jógee kenn du ko delloo fekkee ne sëy leen ensemble ci wàllu ci bi loolu la wax beneen bi moom mooy nee nañ wéyjur bi ci boppam dëgg la euh, na ko sànq sàmm def nañ tamit beneen xeetu njuréen boo xam ne bokk ci beneen mooy adoption am na ñaari forme bu ñu def muy adoption plénière ak adoption limitée bu dee adoption plénière mën nga dem sama def option ne moom boo gaañoo kooku la doon loolu am na ci adoption mooy ki nga xam ne amagul doom dem ci bërëb bi nga xam ne am nay gone yu ñu for wala si koo xam ne am na day am na bàyyi nga dama ko am sa doom ma jël ko doom woo ko nga ñëw tribunal ñu dafa leen kii loolu am na ci consacré nañ ko loolu tamit xale bi buñ demee ba nga xam jafe-jafe am na gisatul ndey gisatul bàyyi kan mooy nekk kilifa ci yoon dañ ne dañuy def conseil de famille. dañuy jël ñaar nit ci néegu ndeyam jël ñaar nit ci néegu baayam ñu def conseil de famille ñu jël kenn ci néeg ndey ji wala néegu ji def ko tuddee koo koy nekk kilifa ñu ko si projet tuddee bu kële mënatul kële mooy mooy yegg loolu am na. je laisse trois ah, wala ci wàll dee ci wàllu tas bi la boo ñëwee dañ ne àttekat warul ñëw rek mu gëm mu àtte mu tas sëy mu seetu mu nax mu xool mu waxtaan ak ñoom te loolu macha allah yàlla ci def sutura teraanga ci wàllu ci kër àttekat yi jàpp naa ne sax ne léeg-léeg teel dem sax bu bëri ñemewuñ ko xëy na waaye dem la surtout très souvent moo koy réglé mais bu ñu demee ba nga xam ne jeex na yàq na na bu demee dañuy valider am na boo xam ne divorce par consentement bi jeex na am na boo xam ne divorce contentieux la bu dee ci wàllu divorce yi tamit am na fukki cause yoo xam ne ci la ñu war a sukkandiku pour wax ne kat jiw moo tooñ jiw moo tooñ képp ki nga xam ne nga tooñ nga tooñ yow kese keneen ku bu laajee ndàmpaay mën nañu ko jox même bu góor même bu jigéen te tamit bu fekkee dafa am ay gone yi fa nekk nekk ay mineurs dañu wax ne kooku ci baa ji lay dem wala ci lee ji lay dem beneen bi ci des lu def rek moom mooy ci wàllu xëy bu mu faatoo parce que sànq kilifa gi suñu waajur bi ñan euh, dafa posé question ba solo mu ne dégg na sax souvent bu fekkee ne nit dem na dem ba gaañu bu fekkoon dindi leer danañ ko appliquer charia bu dañ koy appliquer euh, code bi dañ koy appliquer ma ne ko code bi dafa am ñaari fànn yu nekk mu ñaanoon na ci waxtaan bi code bi dafay wax ci ñaari anam ci wàllu ku gaañ daa am ñoo xam ne bu dee jullit la dañ leen attee boo bëggee dañ leen attee ci naka jullit bu sa njaboot bëggee loolu bu sa njaboot nag amee xëccoo bëgguñ kenn du forcé après ñu jël la benn bi dañ leen di laajte ñu def enquête ñu vérifier xool ndax kooku moom ci comportement am moo nañ ci comprendre ne ku bëggoon ñu applique ko charia est-ce que jullit la woon est que daan na julli est-ce daan na woor est-ce que daan na ziar demoon na màkk demoon na lii demoon na lii bu fekkee koo xam ne demoon na ci beneen màkk ñeneen ñëpp bu ñu waxee ne bëggu ko woon mënuñ ko nangu bu kenn koo xam ne nag daawul faat bu wax ko ñëpp dëkk jiral loolu ñëpp nangul ko loolu ci koñ ci dëkk bi ak ci jàkk bi dañ koy appliquer loolu appliquer loolu moo tax sànq professeur wax nga ne dañoo doom ñëpp yóbbu leen foofu waaye bañ fa yóbbu foofu dafa créé ay néeg yi nekk kaar yi moo fi nekk kaar bi souvent imam lay doon bu dëkk ci dund ba yow àttekat bi waroo àtte lépp luy droit musulman te doxuloo ko bu dee droit musulman kese la succession waroo ci àtte dara te doxuloo ko kaar yi ba pare mu seetlu ko xool ko defar ko loolu ko jël xëy na rek am na yenn tribunaux yoo xam ne amaguñ cadre ñenn ñi amoon cadre yi cadre yi jóge fa renouvelé wuñ ko ci wàllu sëy daa am benn xam ne pour que da cee prévoir loo xam ne même parce que jullit la que lee lañ koy appliqué dañ koy xool foofu akam en tant que doomi aadama digganteem nag yelleef ak beneen bi nga xam ne mooy soxnaam ñu doon layoo ñoom ñaar kii ne lii la ma def kii ne lii la ma def kii ne lii la ma def ñu xool kenn ku ci nekk li mu def yan firnde la am firnde yu mu am boo ko analysé yi nga xam ne moom lañ déterminé woon fukki cause yi ñu seetu ba ne lii ba ñu xam ne jox nañu ko kii la yoo lii kii la yoo lii kii lii la génn comportement yam lii lay nuróol buñ demee nag ba nga xam ne kenn ku ci nekk bëggatul wala ndaw si bëggatul ci biir sëy bu ko neexee mu ne bëggatul su boobaa amul benn cause bu muy joxe ñu jox ko incompatibilité d'humeur def ko à ses dons exclusifs bu fekkee dafa gis ngeen ci góor bi loolu lay def ñu jox ko loolu waaye benn bu ci nekk rek am nag ay conséquences la waaw kon daal allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim xam naa liñ njëkkoon a wax jërëjëf boobu taxawaayu kilifa yi ci code bi xëy na rek euh, soxna Fatou nee na. kilifa yëpp yëpp yëpp maase wuñu woon maase wuñu woon dañ cee ànd waaye xam nga jamono yi dafa amoon li ñuy de conseil supérieur islamique dafa amoon jamono yooyu te booba ñi jiite ñi jiite jullit ñi ci Sénégal moom ñëpp amoon nañ fa ay ndaw ñi jëpp sax ña ko jiite woon foofa lañ ay xarit ne woon bokkoon nañ ci Seydina Issa Laye Thiaw ku mel ne Saïd Nour Taal kon moo doon magum magum kilifa yi lislaam yëpp ku mel ne Alaaji Ibrahima Niass ku mel ne Alaaji Abdou Aziz Sy ku mel ne sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ca mboolem këri diine yi euh, Njaasaan Canaba Madina Gunaas ñoom ñëpp seeni ndaw dañoo nekkoon ci conseil ba te conseil ba ci boppam moo joxe xalaatu bañ cee ànd lu mel noonu kon moom foog naa ne li ñu mën a jàpp rek mooy ñu jiite woon julliti Sénégal moom ànduñ ci li mën a jàpp ndax conseil bi moo leen doon jëmbal te conseil moo ci àndul dafa génne ay tomb yu bare bare bare bare yu mu wax ne yii dafa wuteeg lislaam di fekk ñu ngi ci ci ànd te yooyu ña nga ca kon neexuta euh, ci ànd xëy am na ku yëkkatiwul kàddoom waaye ñàkk yëkkati kàddu du tax ñu ne da cee am bu fekkee sax njaboot yow yëkkati nañ seen kàddu te seen kàddu mooy ñàkk ànd loolu mën ngaa doyloo seen kàddu ñoom moo tax ma jàpp ne loolu moom du neex a du neex a du neex a dëgëral nag li yëpp solo te soxna si wax na ko mooy li ci kanam li ci kanam te ni ñu ko waxee solo naa mooy li yëpp solo mooy ay loi dañ koy war di xool ak xoolaat saa bu amee benn diir bi dafa jar di xoolaat te buñ koy xoolaat itam ni mu ko waxee ñëpp ñu ci war a bokk ñu bokk ci anam buñ ko war a xoole ñu xoole ko ni foog naa loolu ëpp solo te ñu euh, président wax na ko mooy nit dañuy defal loi te daa am lu ko luñ ko mooñee loi dañ cee war a bàyyi xel yooyu loi mënu bu fekkee bëgg nañ mu baax te te loi bu baax mooy loi bu nit ñi nangu loi bu nit ñi nangu di ca dem ci seen coobare di ca attew ci seen coobare loi boobu mooy loi bu baax code de la famille bii nag ku ne xam na ne du du yi nangu buñ ca dem ci seen coobare soxna si nee na ginnaaw dañoo dañ ne daa wuteeg diine lu tax ñu cay dem ñàkk pexe tax ñu cay dem ndax loi ak àtte bokkuñu loi moom li fekk demoo mën nañ leen mën nañ lee seetaan waaye nag àtte nag boo demee ba soxla àtte moom mënoo ñàkk dem fa ñuy àtte te boo demee fa ñuy àtte ci loi boobu lañuy ñuy àtte moo tax ña fay dem demuñ fa seen seen coobare du caageewul bu fa dem rek daa daa gëmut ne wuute na ak lislaam dëgg-dëgg wala wuute ak lislaam da ko gêné wut dëgg-dëgg waaye day ñàkk pexe ñàkk pexe rek moo fa yóbbu nit ñi waaye ku ne xam ne ne sénégalais du luñ nangul seen bopp di ca demal seen bopp ci seen coobare bépp loi bu mel noonu nag du loi bu baax dañ ko war a seetaan buñ koy seetaan nag ñu bàyyi xel li ñu war a bàyyi xel lépp te foog naa ne xam nañ ne moom bàyyi wuñu bañ koy teg li war a bàyyi xel lépp ndax bu dañuy jiite jullit Sénégal te senegal ñëpp daanaka di ay jullit ñi leen jiite nekkuñ leen ban joxe seen xalaat ñu bàyyi ca xel kon mooy bàyyi ñoom xel li ñu war a bàyyi xel lépp saa bu ñu koy defaat nag dañoo war a bàyyi xel dañoo war xel lépp surtout su ñu fi doon def gàntu ga mbirum politique la rek imaam bokkoon na ci man ñi bokkoon naa ci booba itam kilifa diine Sénégal yëpp yabal nañ ci ay ndaw man sëñ Mourtala moomu fa yabaloon bokk naa ci liggéey ba mu nokk bañ koy yëgal waar yi man maa ko doon jàng ca institut islam bi waaye politique lañ ko dàqee rek mooy yooyu ñoo xam ne séqoon nañ dara bu yàgg xay na ñu gis ci koo xam ne séqoon nañu wàllu politique rek ñu dàq ko noonu waaye maître Babacar Niang mi ko mi ko mi ko tàmbali woon maître Babacar Niang da ko tàmbali woon rek xalaat bi daa jóge ci moom mu wër kilifa yi wax ceeg ñoom waaye moom defu ko defu ko waa Sénégal gépp ko ànd def léegi nag mbirum politique la rek ak mbirum ay ay ay ay jota yu yàgg moo ko yàq li mu wax ne moom la président wax xam nga ne loolu du du du dëgër lool lu tax jamono yi diw sàngam waxuñ ci dara jamono yi diw sàngam waxuñ ci dara sama na jamono ñu ci wax dara xam loolu du aw lay bu dëgër mbirum politique loolu rek foog naa ne dafa jaadu dafa jaadu ñu waxtaane waat niñ koy defe ci loi yëpp loi bu ne bu demee bañ gis cee jafe-jafe gis na waa réew mi nangu luñ ko seen bopp duñ ko war a waxtaane jaaraat ko fañ ko a jaar buñ koy def nag bàyyi ci xel ëllëg li mu wax ëllëg ëllëg mooy àddina day dox am na fu mu jëm waaye fa mu jëmit nag noo koy noo koy xoolal suñu bopp noonu duñ ci topp keneen àddina ñu bare fi ñu bare fi daje ñu bare fi daje ñëpp a jëm ci kanam di dem bu ñu dem nag suñ dem bopp lañu ñu war a dem waaye duñ dem topp ci ginnaaw keneen te daa yomb nag loolu dafa yomb ndax ginnaaw cosaan la dañ ko jële woon ci keneen ba nga ni ñu bari ci suñuy tëralin dañ ko jële ci keneen dañ ko jële ci tubaab wax naa ko fii daaw xaw mu daaw jéeg daanaa ko fu ne mooy Sénégal bi ñu demee bañ ne tubaab bi tubaab bi bi ñu fi nekkee dafay tegoon ay tëralin yoo xam ne ngir njariñam la moom du woon ngir suñ njariñ ñun demee bay dem nun danoo waroon a wax ne tubaab bi kat léegi dem na nan toogal suñu bopp nag noonu xoolal nan la ñuy tëralee suñu bopp ci wàllu gu nekk ba nëgëri defuñ loolu li fekk defuñ loolu nag wàllu bu di doon ay jafe-jafe dañu koy ndax ay li ñuy wax rek la def waaye taxaw nag xoolaat lépp éducation def nañ ko fi waaye taxul ñu doxal def nañ ci état def nañ ci biñ ci mujjee def na assist éducation fii waaye doxaluñ ko te lu mel noonu nag war a def ci wàll yëpp ba ci yoon loi yeeg yëpp xoolal suñu bopp ne lii nan la nan lañ koy tëggee mu dëppoo ak sun suñuy ngëm-ngëm suñuy aada suñuy baax suñuy cosaan suñuy jaar-jaar dañu war def ci wàllu gépp fu ñu ko deful rek ñu ñàkk am ay jafe-jafe code la famille nag xëy na buntu la bu ñu war a mën a tax mel noonu maa ngi jégalu nag maa ngi jégalu ñëpp di santaan nag bu baax baax ni ma ko waxee léegi ñoom euh, dañoo générosité bi ñu am te at yëpp ñu ngi koy def di ñëw di fi indi xam-xam di waxtaan ak nit ñi di jariñ nit ñi du ñàkk itam ñoom xëy na ñu jariñu fi ñooy doon maa ngi leen di gën a santaat baax di sant mboolem fi tam yëpp